jërëjëf mbokk yi amati mbégte ak bu baax baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni koy defee rek ak yéen saa su ne di ànd ak yéen ci li xamante ne moo di actualité waaye tey ñu dalal ne sénégalais miin nañ ko ci rédaction bi di Sénégal Buzz 221 di suma frère Simil borom jàmm gën borom caabi mooy tëj di tijji tey nag moom laa toogal dama koy bàyyi rek mu ndeek mbokk internet yi le frère maa ngi lay nuyu di la siyaar. waaw asalaamaaleykum réew mi asalaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. El mhm. Hadj di nuyu di nuyu Thiam du nuyu këpp kii Sénégalais di suivre Sénégal Buzz 221. du nuyu diaspora bi du nuyu waa Diamaguène Sicap Mbao du nuyu waa Sam Sam du nuyu samay nit du nuyu samay xarit mhm. du nuyu samay dëkkandoor du nuyu sama yaay di ko ñaanal jàmm yàlla may ko tawféex maman Safi mhm. suma yaay bopp jooju nga xam ne carrément damaa jur mhm. mais damaa jël xartu xartoog man rakkoo ma magoo ma te sama yàlla du dëgg kon maa ngi nuyu àdduna di nuyu ñëpp di nuyu Matar Diop suba teel sama patron di nuyu le centre du peuple Sidi Diop di nuyu sénégalais yëpp di ñaanal réew mi jàmm di ko ñaanal ñëpp ñu jiitu yàlla xaare leen àjjana ñu feebar yàlla fagg seen bopp ñu jóg ñu si kaso yi yàlla génne leen ba bi ñëwaatee duñ defaat leen loo xam ne carrément tey dina leen dugal ci biir kaso yi. Mhm. jërëjëf allah loolu aussi di nuyoo bu am solo mbokk yi waaye di kontaanaat bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak moom ni ma ko waxee rek ah dalal ko fas yéenee waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo di actualité actualité bi nag yaakaar naa ne yëg nga ko euh, di si ki nga xamante ne aussi sénégalais yëpp ñu ngi ciy wax li nga xamante ne moo dal Adamo euh, ñu jiiñ ko ko xam moo ko def wala def ko ko vidéo yi sénégalais yëpp gis nañ ko bi nga gisee vidéo yooyu di circuler si mit lan nga ci wax. waaw mooy. Mhm. mooy réew mi. kenn ku ne li nga liggéey rek ngay fayeeku nit mënut a fayeeku lu mu liggéeyewul kenn ku ne li nga liggéey dong ngay fayeeku mm-hmm. non kaa aadama mun naa see sori mun naa see bañ a sori ah, xam tax loolu mm-hmm. parce que góor jigéen ak ki taal mm. kooku jàpp naa ne carrément kenn war see wax mais ñun ñi nga xam ne dañuy dund soo biis mm-hmm. ñun xam nañ ni góor jigéen la xam nañ ni carrément góor jigéen international du dëgg wante dafa am loo xamante ne yàlla mooy ñëw taxaw à sa place yàlla mooy taxaw sénégalais yàlla mooy taxaw nit ñi. Mm-hmm. li nga xam ne carrément moom la ñu koy giim ki giim ko dara dëgg la moom la góor jigéen la. Mm. waaw loolu la parce que parce que confirmation weesuwul tey preuve yi sénégalais jot mais góor jigéen la mais loolu jaroon nit ñi di ay preuve aadama même bu dul acte bi sax mais góor jigéen la. Mm-hmm. la moom nëbbu ko moom góor jigéen la. Mm. problème mooy kay daa bañ a assumer góor jigéenam mais góor jigéen la. Mm-hmm. mais góor jigéen la mais ginnaaw bi nga xamante ne mooy video yi génn moom bañ na li nga xamante ne mooy tuuma góor jigéen bu ñu teg ci kaw ba mu taxaw génn ne day day setal deram hélas ki génne ay awra ay awra jàmbur hmm. di génne ay awra yaayam ah génne awra ñi nga xam ne carrément tey mën nañ ko yaay génne awra ñi nga xam ne carrément mën nañ ko bàyyi ah, ah ay kilifa diine ah hmm. mu bëgg leen toroxal ah ah ah ay nit ñoo xam ne carrément tey ay xale yam avenir ay duudu ay nguur mu leen di toroxal hmm. mais tey moom bu demee en retour ñu tuumal ko benn affaire mu tiit ba simi tubéyam ba wane awraam. Hmm. jàpp naa loo jaratul débat. Hmm. loo daa jar loo jaratul débat. jaratul débat ki génne awra jàmbur ñu tuumal la benn affaire. Hmm. Ah, nga dem ba tiit ba ba ba génne sa awra. kooku jàpp naa sénégalais kenn war kenn war see débat parce que hélas ñu danaa soxla ñi wan sénégalais loo xamante ne njëriñ la si peuple bi loo xamante ne sénégalais ba ko gis mën a njëriñoo mais ay aadamo loolu du kaa. problème mooy ñenn ñi si sénégalais yi ñooy laam-laamee góor jigéenam. mais xanaa vidéo yi leer na lépp. Mhm. Adamo jarta wax kii génne mais mais kii génne ay awra jàmm nga dem ba génne sa awra tey. Mhm. du mhm. def gën a yées sax. waaw ah, lu mu def ni moo gën a yées quoi moo gën a yées moo gën a yées ah. mu mel nii lii aussi message la boo xamante ne xëy na sénégalais yi ku ci ne rek war nga mën a bàyyi xel ci lépp loo xamante ne yaa ngi koy dund rek mu doon lu baax ndax ni ma ko waxee sànq kenn mënul gisoo mënoo gis ki nga xamante daa ji kaani góob li nga xamante ni tey moo di ananas. hélas mooy li ma wax naa la ko nee na kenn ku ne li liggéey rek ngay fayee ko. Mhm. maanaam nit ki boo koy sàngal sutura na fekk moom mu nekk nitu sutura. du dëgg mhm. Adama bay barki démb Ndiaye la fi jàpp koo xamante ne kilifa la muy Pape Hann. Mhm. koo xam ne àdduna ñëpp ko respecté. ñëpp nawloo ko mu nekk kilifa boo xamante ne day taxaw diine di taxaw lislaam mu koy weer di ko tuumal si loo xam ne carrément tey teg ko fenn tey est-ce que xam nga ni carrément tey yàlla suñu borom day àtte. yàlla tey moo àtte dañu ay kilifa lañu du armo dañ koy fay muy ruube jàpp fi mbaacu ruube jàpp fi duudu ruube ngóor ruube mhm. ah biril fo faaf mu ruube mhm. Zeyna mu ruube Ndey Njaay Banaya mu ruube mhm. Adamo ñu mu ruube ñëpp képp kii senegal ko taxaw tey ah di am yërmande si Adamo damaa jàpp ne yéen bokk li ngeen di dund kooku du nit ku baax deretam baaxul mu baaxul te yàgg naa ko wax góor jigéen la góor jigéen la amul leneen. Mhm. aussi comme ni ma ko waxee rek euh, mel na ni tey sénégalais lii nga xamante ni tey daf ko dal dañ ko ko yéene. mais li victoire la. Mhm. barki démb ñaay gis nga ko plateau te mhm. damay faral di wax ñu naan 6 000 dafa internet yi ngir yàlla nañ bàyyi bi nekkee seen émission di woo Adamo di ko dugal si émission barki démb ñaay laa seetaan benn émission. ñu woo ko appel en direct mu fay saaga jëmbur yi di ko humilier te jëmbur yi nekk si dëgg nekk si loo xam ne carrément tey day taxul peuple bi. mu dugg. Mm-hmm. Ah, di saaga nit ñi naa ko fenkat nga doo wax dëgg ah te pourtant yi mosul taxaw tey wax loo xamante ne réew mi tey nit ñi xeb nañ ko mm-hmm. du dëgg mm-hmm. lépp lu muy def si internet bi li njëriñ réew mi la mais ñu woo ko ñoom mu dugg si serveuse bi xam nga wax di ko saaga di ko humilier jumóor yi kilifa la am na ay doom am na am na ay am na am nañu ko bëgg am na ay soppe am na soxna du dëgg képp ki sénégalais koo xam ne carrément tey mus ngaa wax ak Adamo li may wax nii si biir problème moo koy wax. Mhm. képp koo xam ne sénégalais nga mus ngaa wax ak Adamo jàppal ni Adamo naa génne say vidéo parce que dafa tiit te góor jigéen bu tiitee day jëfaru. parce que démb njaay ji am zozo da tax mi wax li muy wax bëgg a taal réew mi. Mhm. Adamo fu ne dafa jëfar ndax jëfaru moo waral tey. Mhm. mu simbi tubéem génne awraam. mais yow mais yow ji est-ce que lii jàpp nga lu naturel la jàpp loo xamante ne lu ko nit def la wala ñu xabtal ko ba mu def lii wala dara. ankay. mais tey ma jox la exemple bu ndaw. Hmm. sëñ Moustapha Dramé yàlla kese ma koy nuyu de passage. Hmm. damaa bëgg réew mi xam ni kilifa la. hélas. Hmm. man toog naa xalifa rapport toog. billaahi. barki Mouhamed yàlla bu sama yaay fekkee sama njëriñ. rawal te nga ni ma mel man si sama yaay. kenn la ci yow dëgg la barki Mouhamed sëñ Moustapha Dramé toog naa mu toog mu a ma simil mu ne ma naa mu ne ma aadamoon naa ko weer. te balaa mi mat weer naa ko weer tam xolam weer juste la toll la toll. Moustapha Dramé. yàllaay kese. xoolal <laughs> wax ji bëri na cool yi bëri na nit ñi naan daa tàng mais barki sëriñ maam borom mbir la te lu mu doon ni hélas dakaa doon si ay maamam doon ko si baayam borom kuus la borom kéemtaan la borom mbir la aadamoo lu ko dal yëpp hmm. sëñ Moustapha Dramé la boo jugee fii dama seeti ko hmm. waxoon na ma ko wax ko xalifa rappeur te tey premier nekk li sëñ Moustapha Dramé moo lor aadamoo te bu ko boo ko jégalu na dalay faat maa leex lu garaaw nag hélas mhm. borom mbir la du ay caaxaan de mhm. Mhm. borom mbir la waaye sénégalais yi nga xamante ni ñoo ko doon bàyyi xel di rafetlu li nga xamante ni mu ngi koy def ci xale yu jigéen yi ci xaawi suturé beeg yooyu ñooñu ban taxawaay la ñu war a mën a am tey ci ki nga xamante ne tey moo def li tey boppam aada moo ëpp complice Sénégal si internet bi ñu nekkee 14 jàpp ni 12 yëpp ay complice Adamo la parce que ñoo jël ay vidéo di ko envoyé Adamo pour vie yokk pour nit ñi mun leen suivre sénégalais tamit am na loo xam tey war nañ si def attention bu doole tey ji nga la fekk ngay vocalité ak Adamo rek yaa ngi si risque te Adamo tey boo jëlee téléphone am tey xaaju réew mi yëpp ku ne mu ngi jàll ak yow ay vocal te góor jigéen di si yàlla wax. Uh-huh. góor jigéen moom bu deewoon tey dañ koy lakk. taal ko ba dagg ba mu ñor taal ko lakk ko mu doon doom daal wala ñu sànni ko tànn yi jëfandikoo. nga koy fréquenté. Hmm. ah di woote ak moom ay vocal di wax ak moom ngir lan. bëgg maanaam bu dara amee mu défendre la kooku mënut a défendre kenn góor jigéen mënut a défendre nit góor jigéen leen la mën muy sos te aadama ko xam-xam ni mm-hmm. carrément day sos. Mm-hmm. léegi nag ñi nga xamante nag tey ñoom ñoo taxoon doon namoo aadamoo naan suñu aadamoo la mm-hmm. waaw suñu nit la suñu gaan la nañ taxaw am fierté ah ah ah, ah bu ñu daw seen responsabilité nañ taxaw ànd ak aadamoo gunge ko mais képp ku ma xam si réew mi nag ku ko doon fréquenté. man si problème bàyyi daal parce que man ay mbirum góor jigéen moom ah hélas <laughs> bëgg ma ci di sori. yaa nañ yàlla mhm. mais yàllaa la weer natt yu nga doon def ay doomi jàmbur. di mhm. jooyloo ay yaay jàmbur ay mère bëgg fàllu ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. toroxal bi ngeen toroxal yow xam nga ne carrément tey yàlla dina la xaar te nag lu ko dal yëpp hélas maa la ko fii sëñ Moussa Dramé la dama si am preuve moo tax. Uh-huh. mais ki nga xamante ne aussi moo génnee vidéo bi dégg nañ sànq moom ci boppam moom Adamo ne dafa demoon police porté ko plainte. <laughs> góor jigéen naa mën a pot kenn plainte. Uh-huh. waaye non moom bi mu am ni mu daan génnee ay vidéo jàmbur di xaawi ay sutura jàmbur. Adamo ñooñu plainte ko ndax moom war naa génnee kenn plainte ko. Adamo moom bu dee Sénégal fii. 800 wala 900 plainte moo koy xaar bu dee bitim réew lu koy xaar ci plainte ki xamul lu mu toll. ah ay Ndella Madior ah ah ah ah sama jigéen Mbathio Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñu ko war a plainte tey nu mu bëree si àdduna bi moom benn vidéo mu bëgg a plainte réew mi mun na plainte kenn góor jigéen mun na plainte kenn mais nag mun naa am ay sosom uh-huh. ba toj boobu parce que booy bi itali italien moom mm-hmm. mais nag may lancer un appel sama gaan samay gars yi nekk Italie laa ngay VIP sama xarit booy boobu dama bëgg ngeen taxaw ko ngeen défendre ko mm-hmm. te laa ngay borom yoon la sama xarit la dina ko défendre dina ko taxaw dëgg mm-hmm. mais Adamo amul sax droit défendre kenn góor jigéen moom. Hmm. Ah, looy porte plainte. ki ñu fay sa bor nga mer. waaw li nga leblee baaxul. hélas hélas hélas. Uh-huh. booy aara moom mun naa plainte góor jigéen la góor jigéen la ay vidéo jàmbur la noonu Willy Pandé si fexe na ko génnee benn ngir moom mais déggul bi. Uh-huh. ah. ban woy uh-huh. jàmbur. Sidy na ko benn son ngir mais xamul sa son moom. son bi Franc booy bëri defar nañ ci. Mhm. mais moom ndeysaan topp topp xadaram xam nga xaalis góor jigéen dafa neex doo ko liggéey da ngay toog nii la iri la nii may la benn 5 millions nga dem. pour moom xamul temps bi la daw li nga xam ne la fiy daw de. <laughs> Hmm. léegi rek. Hmm. artistes yi nga xam ne carrément ñoo doon jege Adamo ak woykat yeeg mbëri yeeg zóor yi assumer leen seen responsabilité taxaw hmm. leen. <laughs> waa Jamra nag lii war na ci jël occasion liggéey si liggéey bu am solo. maam mat maam Matar. Mm. war nañ see jël occasion. Mm. ñu liggéey si liggéey bu am solo te dama la tey West Foire ñaata góor jigéen fa ne hélas. Ah, bëri léegi mooy mooy mooy base góor jigéen yi la nekkoon almadi yëpp léegi ñuy West Foire da gis góor gu romb wala bënn bakkan bi bënn laamin bi ana góor ak bënn bakkan ak bënn laamin hélas ñun ñun si ban dëkk lañ nekk. waaw am nañ fi doole lool sunu kilifa yi. Mm-hmm. nañ fexe ba góor jigéen yi ak waxkat lu ñaaw yi. Mm-hmm. bu ñu téye suñu kilifa diine yi. ah di xas di leen saaga ba ñun sénégalais yi di gisaat ay vidéo du ko dugal si internet bi. Mhm. du dëgg. Mhm. kon tey dafa am loo xamante ne hélas ñun sénégalais yi maanaam tey ñoo si war a taxaw ñun sénégalais yi ñoo war a jàppale kilifa diine yi ñoo war a jàppale kilifa aada yi parce que góor jigéen yi la mooy seen mission mooy dugg si kilifa yi. Mhm. mais dugg nañ si kilifa yi mu ñu fa am dara su saa si lañ jëm. kon loolu il est temps tamit nit ñi bàyyi si xel bu baax a baax a baax a baax a baax may nuyu nag Pape Hann di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfeex. jeunesse bi yàlla na andi si diine dina andi si lislaam mais hélas li ci am am am am mooy lan mooy aadamu l'islam rende na ko jarul débat jarul wax góor jigéen la borom la nga fay uh-huh. macha allah mbokk yi yaakaar naa ne loolu aussi di kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na mu war ñàkk ñu toog moom euh, siq moom li nga xamante ne moo di waxtaan ndax ni ma ko waxee rek porteur de voix la koo xamante ne nit dañu koy bàyyi xel ko xamante ne aussi day taxaw sénégalais ci côté bu ne muy lu am yoon amul yoon mu ciy jug du ci wax yaakaar naa ne tey lii bu xewee tey ci réew mi sénégalais yëpp xëy gis ko te mu yàgg cee taxaw di ko jooy mu yàgg cee taxaw di ko wax du ñàkk ñu toog ci ak moom waxtaan simil yaakaar naa ne waxtaan bi ñu waxtaan tey lu am solo loo xamante ne sénégalais war nañ ko mën a bàyyiwaat xel ngir jàngaat ci. hélas. gis nga àdduna boo nekkee ndaw. Mhm. boo jàngul sa gàllaaj mooy liggéey. Mhm. loo am xam ni yaa ko moom hélas xam nga la ma tax sénégalais di critiquer simil problème. Mhm. à loolu amul lenn li muy critiquer mooy sama diggante man ak Sidi sama diggante man ak Matar Diop suba teel te loolu choix la. Mhm. ma ànd ak hélas bu heure ma neex. waaw ma ànd ak Thiam. sa choix la kenn ci dara. man sama avenir sama yoon yàlla suba teel la ko defoon. Mhm. du dëgg man teel mooy sama famille. Mhm. Matar Diop suba teel mooy sama papa mooy sama kilifa. Sidi Diop mooy sama woykat. am nga ci droit am na ay woykat. du dëgg man képp ku génn saaga ma wala wax ma lu ma neexul lekk damaa jàpp ne lu may sii di ma waral loolu. te Sidi sama deret la. sama saala damaa ji teraanga joo xamante ne man six mille mënu fay ma yàlla meen ay milliards sax mënu ma ko fay aati yëpp benn lañu Wally Seck barki dem jaay prend na ma mais pourtant bi ndayoon ni maa moom fii dama koy nuyu ne ko woykat bi si doon nekk mënu ma sawaa ma romb dem man awma problème boobu mais sama problème mooy samay nit élage bugguma kenn ku ko laal bugguma kenn ku tuuma sama nit ma sulu noonu dëgg la man sama problème élage nit sa nit dong nga am. Ah. bu fekkee dangay ngay nekk sama nit nag. Mhm. ku la laal wala ku la tooñ man 6000 du si wax man est ce que man sa nit laa. comme man samay nit dong laa am. man la mm-hmm. réew mi ñëpp ñoo sekk jàmm. Mm-hmm. mais nag man nangul man. Mm. sama diggante ak subateel mi Matar. nag man nangul sama diggante ma ak Sidi Diop. Mm-hmm. bu ñu bañee réew mi bañ a am problème nag kenn ku ne nekk fi nga war a nekk di doxal li nga war a doxal yaa ak say fans. ñun ñu nekk si li war a nekk di doxal li ñuy doxal ak suñuy fans. du dëgg loolu mooy yow bokk ndey ak baay. dëgg mhm. ñoo bokk ndey ak baay mais dafa am loo xam ne carrément hélas fa ma sëriñ woo mhm. loo xam ne barki démb dafa daw si mhm. mooy sëriñ si ñu jëloon dajale leen teg leen ñi ne ay ginaar ah di tudd ay séebara foo xam ne carrément tey ko fenn ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax sëriñ Tuubaa fowul fowlaawul xam nga wax hélas kon loolu naka nit ñi maanaam ñu jóge fii dëgg fii Sénégal soo bëggee sëriñ si ñaan da ngay seeti Abdoulaye Diop xaas mbaa nga sedd sëñ Moustapha Dramé mhm. ñooñu ay kilifa lañu ay sëriñ lañu may nuyu Abdoulaye Diop xaas de passage suma xarit la suma sëriñ la suma papa suma lépp mhm. ma tourné ko nag la messi de marabouts parce que ah. boo gis am na directeur ah. mais Abdoulaye Diop xaas mooy directeur kull kii sëriñ képp kii ñaan ñaan nga yàlla ah. mel ni Abdoulaye Diop xaas kon nag naka réew mi ñaanal jàmm ah sëñ Moustapha Dramé tamit réew mi ñaanal ko jàmm ñaanal àdduna jàmm yàgg fi hélas fitna ak coow ñu wàcce ko suuf. Mhm. du dëgg ñu bàyyi andi coow ñu bàyyi andi mhm. mhm. naa ne loolu kaddu am solo la waaye boo tuddee Abdoulaye Diop Khass rek naa tudd kenn koo xamante ne tamit xaritam la di nit ku yàlla baaxal di sëñ Mara Niass moom it euh, nitu yàlla la nit koo xamante ni suñu borom day nangu ay ñaanam muy taxaw nit ñi tamit te yàlla rek tax ma koy nuyu bu baax a baax a baax borom parcelle waaye aussi dama lay bàyyi rek ñu joxe dernière kaddu yi waaye balaa laataa dernière kaddu yi dégg naa fu nekk ni maire bi dalaa jox poste bu bees ci dëkk bi yaay borom caabi. non hélas euh, <laughs> damay profité si occasion bi. du nuyu jigéen ñu mun góor. muy kan di nuyu jigéen joo xamante ne jigéen joo xamante ne. l'infatigable la jigéen joo xamante ne dafa muñ. di nuyu jigéen joo xamante ne dëgg yàlla ah dafa metti mu toog resté am diñ si jëkkëram du wax kenn. ku mhm. jëkkëram jëkkëram ay xaritam. Mhm. jëkkëram mooy lépp muy bébé baas séri Papa Diouf barki démb Ndiaye hélas dama doon anniversaire. waaw ma tuddee ko anniversaire bi. yëg naa ko la mu ci def mu yëkkati un million cinq cent may ma ko. Mhm. jël ay ticket yu jëlal ma ko samay nit ñëw. Mhm. kon Bébé Bass Seri Papa Diouf. maa ngi lay ñaanal tawfeex di la ñaanal fan. Mhm. man kay maa ngi doog a comprendre la ma tax Pape Diouf kay nangu takk ñaareel. Ah, jigéen bu rafetee. Ah. yiw. te boo ko neexee chaque jour mu changé sa naturel. mais daa préféré muuru. kooku xam nga ni jigéen ju baax la. te am na bis nag le 19 mars sargal. Bébé Baas ak kan Papa Diouf Grand Théâtre ñu si woo sénégalais yëpp di si woo autorité yëpp parce que Papa Diouf ku muy sargal hmm. ko ko jar la ni ko baax la ni koo xamante moom dëgg yàlla dafa euh, maanaam dignité am ak ngoram ak hmm. capacité hmm. weesu na tey sargal ko dëgg kon nag Bébé Baas le 19 waa Sénégal Buzz 221 le meilleur site internet damaa bëgg nga jox la ñuy gérer ko en exclusivité parce que site bi c'est le site des grands parce que Bébé Bass yow mérité nga loolu. Mhm. te dëgg yàlla sama xol ah dafa tooy si yow de man. non dama kontaan ci moom. waaw dama kontaan ci moom. di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfeex kër gi bees gi nag. Mhm. dëkkal jàmm ak salaam kër gi yàlla na mhm. ba say set juddoo si kër gi. tarkalla la ci loolu teraanga gu mu dund ak yow woo nga ma téléphone wax ma ko ñu ko ciy gërëm bu baax a baax a baax waaye di ñaanal yàlla yàggal taxawaayam moom ak ki nga xamante ne moo di suñu grand sama dëkk Signa. waaw di ñaan le président Ousmane Sonko. ne ko Signa damaa bëgg. nga boole ko si Ziguinchor. Mhm. damaa bëgg Signa nga boole ko si réew mi. Mhm. Signa Bignona la nekk boo ñëwee Bignona. 18 mhm. kilomètres de Bignona. mu nekk dëkk boo xamante ne commune bu bees la. mais ñu fa dëkk bëri. population bu bëri dëkk man sama papa. moo nekkoon chef de village bi. kon xam nga ni am naa fa cër. bu mag mu nekk dëkk boo xamante ne population Signa. ah wax dëgg yàlla ñuy dund lu metti mhm. am na tëli boo xamante ne Ousmane Sonko laay waxal tout moom laay waxal ah. waaw Sonko. direct tëli boobu diggante Bignona ba Sindia 18 kilomètres la. Mhm. population Sindia ñu ngi lay ñaan nga ñëw defal leen tëli boobu parce que bu tawee population Sindia dañu am ay jafe-jafe pour génn. Mhm. dem Bignona. beneen bu sop ki nga xam ne carrément mooy mooy mooy maire actuellement bu ne bu Sindia mooy Ansoumana euh, Sané. doomu Sindia nga. Sindia gis nga seen hôpital bu nu mel baaxul. te guddi malade mën naa feebar nga koy yóbbu hôpital mhm. ña koy faj nekk fa matériel yi nga ko war a fajee nekk fa mhm. nga koy jël naan nga koy yóbbu Ziguinchor mhm. si yoon bi lay deeyee kon nag waa sëñ danaa soxla nga defal leen seen hôpital bi boo defaree hôpital ba pare danaa bëgg nga defar tëli bi parce que sëñ ñaan commune la ville la parce que dëkk nekk si ginnaaw sëñ ñaan wax dëgg yàlla dafa bari de ay dëkk yu bëree nekk si ginnaaw Signa mhm. dafa nekk commune boo xam ne carrément tey benn dëkk daa ko Casamance hélas mhm. mhm. man sama papa fa lañ kon am naa fa cër man bu mag du dëgg bu mag te Signa boo ko liggéeyoon man 6 000 ah fekk 5 ans dama ñëw présenté wu élection de ah, parce que actuellement ñëpp ñu ngi dellu seen dëkk ah waaw ah, mais nit amul lu dul fa nga dëkk te jàmm nga waaw waaw kon jeene kon Signa uh-huh. ah, uh-huh. mm-hmm. nga taxaw carrément pas tey la région de Casamance parce que nit ñi am nañ si yow yaakaar mhm. am nañ si yow confiance mhm. lu gën a métti mooy mhm. heure bu tawee waa Sindian dañuy am ay jafe-jafe pour génn dem Bignona te loolu teg ñu ko fenn Sindian ville la dëkk bu mag la te dëkk boo xam ne carrément tey bàyyi six mille problème fa la nga suul da nga kaa war a defar da nga kaa a sàmm macha allah di nuyu sa mel ni nga xam nekk Sindian bu tudd Petit Pas. mooy commerçant bu gën a mag Sindian. muy xale bu gëm directeur Sénégal. PDG 221 le PDG. hélas uh-huh. jàmbagan si kaa mbaaw loo fa bëgg hmm. jaaral si man caabi jàmbagan si kaa mbaaw maa ko yor uh-huh. actuellement je suis le nouveau boss de jàmbagan si kaa mbaaw avec le notre avec le nouveau maire Aliou mi nga xam ne carrément tey moo fi dóor ex bi nekkoon hmm. trois heures de temps la ko duma kon loolu dafa nekk lu dafa nekk lu lu doy waar hélas jàmbagan si kaa mbaaw caabi yaa ngi sama loxo te suba demee à partir de 11h mooy premier caravane monsieur le maire Alioune bay bi nga xam ne carrément moom laa Pastef waa Yewwi Askan Wi samp jàmm ngeen si kaa mbaaw ànd ak si biir problème si sama Sénap. Hmm. mu nekk loo xam ne dama koy jël en exclusivité mu nekk loo xam ne carrément tey bëgg naa peuple jàmm ngeen si kaa mbaaw yëpp génn waa Sam-Sam. ah waa jàmm ngeen. Hmm. waa Fora nañ ñëpp génn soutenir ko jàppale ko si liggéey bi. Hmm. Alioune bay tamit sas naa la damaa bëgg nga liggéeyal jàmm ngeen. damaa bëgg nga defar jàmm ngeen damaa bëgg nga def kéntaan ci jàmm gën si kaa mbaaw hélas di nuyu ñëpp di nuyu Sir Diop si kanam nag rendez-vous bi ah est prévu si la route des ak Sir Diop le centre du peuple di nuyu borom place bi sama booy la petit père di nuyu Cheikh doomu yaay yow yaa ngi ci am dama leen di boole Babé le grand couturier baa baa bi laa leen booleel hmm. le grand couturier mu ñawal leen moo moo dàkk ñaw géejawaay moo dàkk ñaw si banlieue bi hmm. muy xale bu bees nag dëgg damaa bëgg boole leen yéen mu ñawal de dana ba Canada jënd ay tisi ñëw di ko ñawal ay sénégalais di leen ko may dëgg kon nekk dama lay boole baa bi séeri biisu bàyyi sëñ Babacar hmm. ah ah, ah bàyyi sëñ Ousmane dama leen di booleeg moom mu ñawal leen parce que bu leen ñawalee ngeen xam ne ñawal na leen rafet hélas jërëjëf kontaan naa si yéen aadamoo góor jigéen bi boo jéggalu sëñ Moustapha Dramé sa bakkan sa koor la yeeg si Sénégal jërëjëf jërëjëf mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak moom fii ci Sénégal Buzz 221 yaakaar naa ne kàddu yi nga xamante ne seq nañ ko ak moom waxtaan ko ni ma koy waxee rek ah, kàddu njëriñ la ci képp koo xamante ne yaa ngi koy déglu di ko bàyyi xel muy 6000 problème doomu jàmm gën mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf